mbokk yu tedd yi fekk yépp Cheikh Cheikh Abdul Ahad ak mbooleen ñi nga xam ne ñoom ñu fekk yépp ñoo ngi leen di nuyu di di nuyu itam suñu mbokk bàyyi sëñ Saaliku moom sëñ Seexuna di jàng fii ci bërëb bi ak mbooleem mbokki tele bi nga xam ne ñooy jàng fii yépp di ñaan yàlla mu gërëm jataay bi te defal na ci taw tawfeex ba buñ ciy génne ñu génneñ ci ak njariñ ginnaaw loolu ngir njëkkante waxtu rek du ñu guddal ci nuyoo yi dañuy wax ne li waxoon ne nañ ko waxtaane mooy lan mooy njàngaleem Sëriñ Tuubaa laaj la boo xam ni xaw naa xorom ci ñu ñëw bu waxtu ñu di ko laajaat waaye bu yitteel la itam fi ne kenn ku ne day wax ne nan dellu ci njàngalem sëñ bi loolu kenn ku ne booy na suñuy nopp nañ dellu ci njàngalem sëñ bi ñu daan firi sëñ bi ki daaw di fii dellooguñ ci njàngalem ñoo koy wax njàngalem sëñ boobu mooy lan loolu lu mat a bu am solo la te bu yitteel la ndax jamono ji ku ne xam na ne noonu murid yi kenn ku ne daanaka ak sa mënatu bopp kenn ku ne ak ni ngay dunde sa murid fi ne dama am mbokk moo xam ni dama laa def léeg-léeg ci biir jataay bu mbooloo bu toogee waxtaan wi kii ma laaj kenn ku ne wax ma lan la jàppe ak murid dafa am nag kenn si sama mbokk yi magi sëñ bi maalo def ko ci benn jataay invité ay nit yu bari ñuy waxtaan mu dem mu yàgg mu laaj leen ne kenn ku leen na wax lan mooy ak murit waaye kenn ku ne ci jataay bi li mu wax bokkut ak sa morom lam jàppe moom ñii ne murit daal bi day naan kafe am ñu ne déet bi lu waaye wax ci sëñ bi rek dégg nga ñi ne murit mooy koo xam ni day jàng xasida kooku mooy murid ñii de muy wax yu bari yoo xam ne benn bokk ci si moroom kon foofu la ñuy am solo gi thème bi am solo mooy lan mooy njàngale suñu loolu itam man bu ma koy waxtaan man naa ci man ñu bari mën nañ ci wuteeg man waaye incha allah dinaa fexe ba li ma ci wax ni lépp nekk mbindum Sëñ Tuubaa ci boobu xam nga <clears throat> nit boo koy gëstu. ci bi mu jógee bi ñu ko noppee gis ak léegi yàggul gis naa ne li gën a wér ci xam lam bëggoon moom mooy lim bindal boppam fim mu ne xisas yi mën naa bari man nga ma wóoru man ma nett lépp xisa te fekk man man na ma wóor ci misaal waaye kama ko déggee mën naa bañ a wóor nett li gi ñu koy nett li itam bu yàggee mën nañoo wëlbati xisa bi bàyyi ci mbaa ñu dolli ci mbaa ñu yokk ci waaye li nga xam ne nag borom yëpp yi moo ko bindal ci moo ko bindal boom ci loxoom loolu dara gënu ko wér dara gënu ko wér kon jëmb boo koy dàq di ko wër di ko jéem a topp la ca gën gën caa wér mooy lam bindal ba mu wóor la lii moo ko bind mbindam moom yi nag buñ ci duggee buñ ci duggee dañuy gis lan dañuy gis lan mooy njàngale bu ma la ko doon gàttalal ngir doog a dugg ci détails yi dama lay wax ne mbir mu ne la ca sëñ Tuubaa doon def mbaa mu doon ko ca digle loole mooy njàngalem sëñ Tuubaa ci loole mbir mu ne ci mbiri diine yi ak li génn diine la ca sëñ doon doon jëfe di ko digle loole mooy njàngalem sëñ Tuubaa ci gàttal Sëñ Tuubaa li ñu njëkk xam mooy dafa birin wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digal mu jàngale amarahu salla alayhi llahu fi l ali wa sahbi wa man walaahu bi an yuallima al muridina wa man yaqbalu minhu nusha min ahli zaman mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digal ne ko jàngalal murit yi mooy ñi nga xam ne dañoo sóobu jëm ca yàlla murit mooy képp koo xam ni yàlla ngay wut yàlla rekk la ñor nga xam ne ngërëmul yàlla rek nga bëgg sóobu yoonu yàlla kooku foo mën a bokk murit la ak foo mën a dëkk ak foo mën a nekk ak noo mën a mel ñooñee nag la ko yontu bi digal mu jàngal leen ak képp koo xam ni nangu nga mu labiré bi ko yonent bi diggalee ndigal lii nag da ko daal di def ànd ca positif lim njëkk a leeral njàngale Sëriñ Tuubaa boo koy tënk mën nga ci wax benn baat rek mooy lislaam la doon jàngale lislaam la doon jàngale diine lislaam la doon jàngale diine yépp xam ngeen ne jamono ji diine yi ci àdduna bari nañ fi mat nañ junniy diine ci li borom xam-xam yi wax junniy ngëm-ngëm yoo xam ne bu ci ne pas-pas bopp la yoo xam ne bokkuñu ak sama wax waaye ja ca wér sëñ bi tànnoon ko doon ko jàngale mooy jenn diine ji yoo xam ne islam mu wàccoon ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu sëñ bi wax na ko ci bërëb yu bari wax na ne yaa ili an ay diinin yustafa inda al ilahi haaka diina al mustafa ayqin bi ann addiina inda allahi islaamuna laa diinu di malaahi id kullu man bilaahu daana turida walil jinaani abadan lan yarida mooy jenn diine rek moo wér moom la yàlla jàppe diine mooy lislaam ji sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale nga xam ne yonente bi sayidna muhammad moo doon yonente bi diine jooju képp ku jàpp ci jeneen diine ju may jooju faw yàlla dàq la ci yërmandeem te doo dugg àjjana mukk ndax jaarewoo ko ci diine ji baax daana àgg moom suñ tubaab ci wax ne biatu siwal islaami bil islaami lu dul lislaam dama koo jaay jënde ko lislaam kon lislaam moo doon diine ji mu doon jàngale moom si moom si Ahmadu Bamba radiyallahu anhu loolu nga jëkk a jàpp ne suñ tubaab njàngale weesuwut islaam islaam loolu jàngale lislaam diine lislaam waaye foofu loolu mën nañ ko dégg ci li mu wax ne diinun siwa islaamihi laa yuhmadu inda al ilahi wa bihi nu jaddidu ak bërëb yu bare bare ba raditu bil islaami diinan laa yazul wax na ko ci bërëb yu bare bare léegi beneen jafe-jafe mooy am mooy lislaam dafa bari ay déggin am na ñoo xam ni dañ leen tudde fi ne ay ay quraani yu la nga xam ne ñoom sunna si yonte bi reconnaître wuñ ko boolewuñ ko ci ci yi ñu war a sukkandikoo ak yiy jàngale diine déet boolewuñ ko ci ñooñu kuréel la boo xam ne fi mu ne nii lañ leen gën a miin gën leen a xam waaye yàgg nañ fi ca saxaaba ya wala boo ginnaaw saxaaba ya la tàmbali woon boo dee gëstu seen cosaan léegi foofu itam nun murid yëpp danañ laaj sëñ bi diine ji nga xam ne moom nga nu tànnal muy lislaam ci fan lañ koy jànge foofu it sëñ bi tontu na ci wax nañu ne man diine ji may jàngale diine ji nga xam ne moom lay woote jëm mooy ji nga xam ne alquran moo koy jàngale ak sunna si yonte bi sallallahu alayhi wasallam sallam mooy li mu wax ne ila ilallahi bilqurani wa sunnati allati hadatni saraftul kulla wal qalbu xaashi'un li fi ma woote jëm mooy diine joo xam ne alquran moo koy jàngale ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam waxaat na feneen ne duumu wax na murid ne duumu ala sunnati wal ijmaai baada kitaabillahi mooy boole leen alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na itam banaytu taatiya bittibaai bi dikri wal xadiis wal ijmaai kon Sëñ Tuubaa lislaam ji mu jàngale dafa taxaw sukkandiku ci kaw alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa waaye foofu beneen ishkaal mooy am mooy alquran ak sunna si bi ñi koy woote mooy jullit ñëpp daanaka ñëpp kuréel boo dem ci biir islam day wax ne alquran ak sunna ci laa de léegi kon loolu jar na ay détail sëñ bi détaillé ci misaal alquran ak sunna diine gi muy jàngale dafa am ñu jàpp ne ñetti xaaj la mooy iman islam ihsan di tawxid fiq tasawuf ci biir jullit ñi gis nga ñoo xam ne tasawuf boobu booriwuñ ko ci ñoom imaan ak islaam rek lañ lañ jàppe muy diine yi waaye gis nga ñoo xam ne tasawuf bi dong lañ jàpp boolewuñ ci imaan ak islaam loolu am na gis nañ ñoo xam ne islaam rek lañ jàpp muy fuqaha yi nga xam ne lu dul sharia ak ahkaam yii nii jëpp ne am lu la kon ay xaaj moo am ci ci ci ñi nga xam ne ñoo jàpp ne diine alxuraan sunna moo koy moo koy jàngale bi nag leeral na lu man diine ji nga xam ne moom laa woote jëm muy lislaam ji may woote jëmit day day day sukkandiku ci ñetti xaaju diine yépp muy iman ak islam ak ihsan dañ ko laaj ba muy dem ci géej gi wala ci majmua bi Cheikh Blaat génne woon bi ko tubaab bi laajee lan mooy tariqa bi bi bi nga woote lan moo koy fon ci lan la taxaw mu leen ussu tariqati al iman bit tawxiid wal islam bil fiqh والإحسان بالتصور طريقة بيغا خامني تي لا نيك دي تي ووتي جيم نو لولو موي موي موي طريقة هذه طريقة دا جيو تي كانام وفيها الماء طرائق القوم الذين جمعوا موي طريقة بيم دون ووتي جيم تي ايمان لا جو خامني توحيد موكاي جانغال خم خمو توحيد اسلام لا جو خامني خم خمو فقه موكاي جانغال ihsan la bo xamne xam-xamu tasawuf moo ko jàngale loolu it waxna ko ci bërëb yu bare bare wax na ne adu ila al ilahi tawhid wa ma raaytu anhum min mahid waxna itam lillahi adu bit tafaqquh bila mayl li gayrihi wa kulli qabila waxna itam lillahi adu bit tasawuf ma makarim al akhlaq wa huwa samia moy kon diine gi nga xamne mom la seigne touba doon jàngale ñaari delluwaay la am muy alquran ak sunna si yonte bi alayhi salaatu waaye diine jooju itam ñetti xaaj la mooy am na wàllu ngëm muy imaan te tawxid moo koy jàngale xam-xamu am na wàllu jëfe jëf yi xam ne moom la cër yi jëf julli yeeg woor moom lañ tudd islam ak jëflante bi ci diggante nit te loolu xam-xamu moo koy jàngale am na beneen wàllu mooy wàllu ixsaan mooy diggante nit keeg boromam te loolu it xam-xamu tasawuf moo koy jàngale kon loolu mooy mboolem ñetti xaaj ñetti xaaj yi nag moo doon lislaam dooy bañ mu gën a gudd waaye xadisu jibril bi nga xam ne ñu bari xëy na mokkal nañ ko fii leer na ca jibril dafa ñëw ci yoon dem di ko laaj ñi ay laaj ba ba muy dem ci mujj xadis bi gis nga yonte bi dafa wax ne hada jibril jaa li yuallimakum diinakum aw kama qaala alayhi salatu wasalaam jibril dafa ñëwoon di xamal seen diine ci la borom xam-xam yi bandaloo ne xadis boobu lépp ci diine mi ngi ci te ñetti xaaj yi la ko xaaj la ko laaj lan mooy iman lan mooy islam lan mooy ihsan kon sëñ bi ñetti xaaj yooyu yëpp la jëlandoo muy diine joo xam ne sukkandiku ci kaw gëm yàlla bu tegu ci xam-xamu tawxiid ni ma ko waxee ak jëfe santaane yi tem tegu ci xam-xamu fiq ak jëfandikoo tasawuf bu sell boo xam xam-xam de ihsan lañ ko tuddee léegi foofu it dinaay wax ne am na beneen jafe-jafe mooy masalan tawxiid boo ci duggee ay njiir yu baree bari la am na ay ngir yoo xam ni ci wàllu pas-pas la comme la ab xaaj lañ kuréel lañ bu mag ci biir tawxiid donte bareetul masalan murjia ab kuréel la bu mag ci tasawuf ci tawxiid donte jàpp naa ne man amatuñ murjia wala boog bareetuñ xëy na xalaat bi mën na fee donte ay xaaj la moom ci biir ci biiram am na ci yenn xaaj yi gën a woyof le mën nañ fee des ba léegi waaye ak bëreetul ñu mel ne am na ci biir tawxid kuréel bi ñu tuddee xasawiya wala karamiya xasawiya mooy ñi nga xam ne dañuy nuróole yàlla ak mbindeefam yi tashbih ak tajisim ñoo ñit ab kuréel la ci biir tawxid bu am seeni seeni xalaat ak seeni gis-gis ak seeni tegandaay am ñu tuddee ya masan ci jamono jii nii am na yeneen kuréel yu yu génn yoo xam ay firaq lañ yu yes comme al bahaiya ak qaadiyaaniya ak yeneen ak yeneen am na ci biir tawxid ay kuréel yoo xam lañ sos wàllu politique la comme chia ak xawaarij yi ak lu mel ne wahabiya ci suñ jamono ji yooyu ay kuréeli politique la waaye affaire waaye kuréeli tawhid lañ léegi fofit it laj laaj kon sëñ bi ci boppam ban ci xeeti kuréeli tawhid yi فاتنا ما أهل السنة والجماعة يعني نحن يوم مم مم مزبي أستم كن أبو الحسن الأشعري نيو نيب أي كرلي توحيد لين فاون مريد نلا سنبي لان غنو تانل تبير كرلي توحيد لي فوفي سنبي تونت نيو في تونت بو لير موي لام منتهي جل مذهب أهل السنة مع الجماعة وتلك الجنه am na feneen fu mu ko gën a leeral ne lan mooy mazhabu ahlu sunna mooy wa bi aqaidi sanusiyi sharif aqaidan fi xaqi rabbina latif al imam as-sanusi pas-pas bi mu doon jàngale te mooy pas-pasu ahli sunna wal jamaa nee na sëñ wax ne mooy pas bi nga xam ne moom laa tànn tànnal leen ko bëgg murid yépp yittewoo ci gëstu ko ak xam seeni pas-pas it ñu dëppale kook moom foofu itam boo seetloo mboolem li Sëriñ Tuubaa bind itam ci pas-pas boobu la ko bindee Mawaahibul Quddus ak lu mel ne Faydul Ghaniyyil Mughni ak lu mel ne Jazbatu Shighar njël benn tasawudu Shighar njël benn tasawudu Shubban yooyu yëpp buy wax ci wàllu ngëm yàlla dafa dëppook aqidatu ahli sunna wal jamaa ci mooy al ashaira ñoom ñooy ahli sunna wal jamaa bu ko defee ñooñu nag kon foofu la ñu sëñ bi tànnal ci wàllu pas-pas ba tey iskaal bii ma wax ci tawxiid day ñëwaat ci fiq masalan fiq moom it ay mazahib ay ngir la donte nag loolu moom xëy na xam ngeen ko mooy wuute ci fiq ak wuute ci tawxiid wuute la bokkuñu wuute ci fiq moo gën a woyof ka wuute ci masalan tawxiid bu dee ci fiq bu buñ fa duggee noonu murid yëpp dañuy gis ay ngir yu kenn xamu nu xam ngeen ne ci njëlbeenu ñaareelu xarnu bi fukki ngiir ak ñett borom xam-xam yi xamoon nañ leen ñu amoon ñu doon ay ngir yu taxaw am seeni delluwaay am seeni manahij yoo xam ne kenn bokku ko sa moroom masalan Sufyaan ibnu Uyaynata xam ngeen ne ngir la yoroon ca Makkatal Mukarram Alxasanul Basri ngir la yoroon ca basra sufyaanu thawri moom it ngir la yoroon ca kuufa al awsaa'i ngir la yoroon ca shaam imaam layth ibnu saad moom it ngir la yoroon ca Égypte misr isxaaq ibnu rahawahi moom ngir la yoroon ca naysaabuur abu thawrin itam yoroon am ngirum mboppam ca Bagdad mook ibnu jarir tabari moom it dëkk nekkoon Bagdad ak ngir yi ñu xam tey masalan lu mel ne abu xanifata Nu'man ñuy askan ci ngirum Al hanafiya Imam malik ñuy askan ci moom ngirum al malikiya Imam muhammad ibnu Idris shafii momi it yoroon am ngirum bopam de nga am askan ngirum ñu Al shafi'i ak Imam ahmad ibnu hambal borom ngirum hanbali ak ngir bi ñoo Al zahiriya te daawud ibnu ali zahiri de nga am sosko ak zaydiya zaydiya ngir shi'a la ñaar ngiri chia am na ci jamono ji nga xam ñing fi ba léegi comme zaydiya ak ja'fariya mo ñu wax imamiya zaydiya zayd ibn ali zainuddin ibn al husayn ibn ali ibn abi talib moko sos imamiya nak dañ koy askan ja'faru sadiq waaye ku ñoo abu ja'far muhammad ibn al hasan ibn farrukh as-safar al-a'raj moy ci ko sos ak ibadiya mi nga xamne xeyna ab xaaj la ci khawariji ki nga xam ne moo ko sos mooy Abdullah ibn Ibad at-Tamimi fukki ngir ak ñett daanaka ñil benn ñaareelu xarnu yi yépp feeñ ngir yi ma wax juróom-ñett yi ma mujj wax mooy yi fi des foofu it danañ laaj lan lañu sëñ bi tànnal ci biir dégg yi ni diine yu yu yu bari fiq ak ni ñu koy jëfandikoo sëñ bi foofu tontu nañu tontu lu leer te mooy. ci majmaa bi Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye Mbacké radiyallahu anhu wa ardaahu génne laaj nañ ko fa ay laaj ca biir laajee mu wax ne aleykum bil malikiyati fa innaha mutahharatun munawwara moom ci boppam dalaa wax ne wa bi tafaqquhi l imaami l imaami malikin tafaqquhan yamna yamnau min mahaliki mooy moom ci ngiru imaam malik ca la ne foofit la digal mboolem ñu ko topp ñu moy ci ngir moomu kon ci wàllu fiqit bu ñu wax lan moo ci njàngaleem sëñ bi mooy nga jàpp ci ngirum imaamu Malik bu dee comme ni nga xam ni ma waxoon ci wàllu tawxid nga njàngaleem sëñ bi mooy nga jàpp ci dégg nga ma aqidatu ahli sunna wal jamaa bu dee ci tasawuf tasawuf kenn mënu ci wax ay ngir ndax li ñu tudda tariqa ni ci tasawuf soo xamee dëgg-dëgg tasawuf loolu du bukkut ak ngir yee ñu waxoon fi ne masalan ñaari tariqa buñ seetloo ñoom lañuy jëf lépp lenn rek moo leen di wutale mooy ab sëriñ ak wird wi ñu wi ñu jëfandikoo xel la ci lépp ñoo koy bokkal masalan nañ xool suñu réew mi ci wàllu i tawxiid ñoo bokk fu ñuy dellu wàllu fiq ñoo ci boll bokk fu ñuy dellu tasawuf ñoo ci ñoo ci bokk mën xaj daanaka bu ñu dellu leen rek la ñu mooy ay sëriñ yu ñuy jiite ak awraad yi ñu jëfandikoo te boo leen gisee ci biir murid yi noonu dañuy jëfandikoo awraad yi yeneen turuq yépp Sëriñ Tuubaa daana joxe tijaaniya di joxe saadaliya di joxe qaadiriya di joxe wirul maaxuusal bi kon tariqa yi du bokkut ak du ay wuute yu am solo mooy manhaju tërbiya bi nga xam ne moom la sëñ bi di tërbiya rek loolu lañ tuddee tariqa léegi nag tari tasawuf kon ay masharib la am ay masharib moom lañ ko tuddee mooy sànn ko ci bu gàtt mooy ci tasawuf am na mashara bu ñu tudde tariqu shukr tariqu shukr ñu ngi koy askan ku mel ne abul xasan sadali nga xam ne ñoom doxub xol la loolu doxub xol la mooy sa xol nga fexe ba dëkkal ci ngëm yàlla gu dëgër ak ubudiya gu mat sëkk lépp nga di ko delloo ci yàlla te itam dundal bëgg yàlla ci sa xol xeeti bànneex yeeg yi nga xam ne mooy xëy-xëy adduna tam nga fexe ba génn ko sa te bañ a sonn nag ci jaamu yàlla yi ci kaw julli yeeg woor yi yooyu noonu nga xam ne alfaraxu billahi ci lañu dox loolu am mashrab la waaye am na beneen mashrab mooy tariq li ñu tudd tariqul mujahada nga xam ne imaamu Ghazali moo mooy ki ko gën a jëmmal te mooy yoon woo xam ne dañuy sonn doo lekk doo naan guddi gi nga fanaane ko julli bëccëg nga fanaan nekk nga yendoo koo war nekk cim tiit nga xam ne jëmm ji ngay sonn xaw faagaagal jëmm ji ngir ngir ngir dox jëm ci yàlla loolu ab ab mashrab la ci biir tasawuf bu ñu seetloo itam dañuy gis ne Sëñ dinay wax ne dafa boole masharib yooyu ci yépp ci biir tasawuf yi nekk ci tasawuf kenn mënta wax ne fi doon woote jëm yoonu sukkur rek la waaye kenn mënta wax it ne yoonu jihaadu nafsi rek la ñaar yëpp la boole loolu it dinaa wax ne mas na ko dégg ci lenn ci mbindam li wax ne qultu wa qasdi shukru an jihaadi ak jihaadu nafsin wa shukrun bil qadaay ridal ak yeneeni xeeti mbindam yoo xam ne mas na cee déggaloon lim daa digle itam loolu lay firndeel mooy li mu wax ne kun shakiran li niamil jalili fa shukru baabu zaydi wal maamuli nga gis fa feneen mu wax ne ruumu jihaadan nafsi yaa ixwaanu falakumu xadan bihil jinaan noonu la ko toppee mënoon naa ci indi yeneen misaal waaye day gën a gudd kon damay gis ne kon ci tasawuf suñ bi daa boole masaarib yépp waaye nag dénkuñu ñu jël tarixab keneen moom ci tasawuf boolewuñoo kenn boppam lañu la ñu mooy li ñuy def lépp ci tasawuf nañ ko delloo ci moom sukkandikoo ko ci moom dafa am wirdu boppam yor tariqab boppam tariqa ci tasawuf buñ ko waxee danay wax ne mustalax suufi la boo xam lañ ca jublu moy wirdun khas mutalaqan min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wirdu wo xam ne bi moko jox ab jam ngir mu ci tërbiye nit ñi loolu la tuddu tudd tudd ci tasaw fi mu ne dinaa ci joxe misal Cheikh mohammed bashir ci min al bakhadim inna misaalum Cheikh Sidil mukhtar al Kunti ak Cheikh ahmed Tidiane ñaar ñoo ñoo bokk jenn jamono Cheikh ahmed Tidiane ñu diko tuddu tuddal te ke tuddu luñ ko tarixa te ñoo ñaar ñëpp ñoo àggoon ci di gisee ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ko waral mooy kii am na wird xaas woo xam ni bokkut ak tarixa ba mu njëkkoon a nekk moom yonente bi jox ko ko mu ci tërbiya te kee amu ko moo tax kee des di xaadir kii nekkoon na ci xaadir ya waaye teewul mu génn ci ñu ko tudd beneen tarixa bu tudd yi kon loolu mooy musalax bi loolu rek lay teg loolu nag suñu tubaab am na ko mooy am na wird xaas mutalaqan min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te mooy wird ñu tudde al maxuuzu min allaahi bi waasitati rasulihi sallallahu taala alayhi wa sallam ba tey loolu génnewuñ ci iskaala bi ci misaal biir pàcc yi ma wax muy iman islaam ak ihsaan lañ ci sëñ ba tànnal buñ delloo ba ci biir dañuy gisaate yeneen wuute yu ca nekkat masalan ci tawxiid tawxiid boo seetlu day gis ne sëñ bi am na lu mu jël ci ñu ñuy tuddee ahlu sunna wal jamaa waaye am na lu leen bàyyee lan leen bàyyee mooy li ñu tuddee jidaal ak jadaliyaat yi nga xam ne moo nekk ci ilmu kalaam ilmu kalaam xam-xam na buy jàngale tawxiid waaye coow la ne ak werante la ca ne loolu sëñ bi dugg ci dugg ci coow yooyu boo ko seetloo mbindam yépp ci mawaahibu xudóos nga xam ne ci la gën a yaatal ci wàllu tawxiid gis nañ ne indi na yii firndeel amul suñu borom bi tabaraka wa taala waaye xóotul ci coowul ilmu kalaam loolu masal bu dee ci fiq fiq itam day gis ci mazhabu mali day am ay wuute waaye lu ci ne itam dana am lu mu ca tànn loo xam ne moom lay def wala mu di ko digle doon nag fiq li ma ko waxee léegi moo gën a woyof wuute ci moo gën a woyof wuute ci leneen lu mel ne tawxid loolu dinaa ko misaale masalan nun ci bu ñuy julli murid dañuy wàcc seen loxo te buñ seetloo ci mazhabu Malik ñaari gis-gis moo ci am am ñu jàpp ne yëkkat loxo bi moo ci gën a wér am ñu jàpp ne wàcce moo gën a bi nag li mooy ak julli moom danaa te itam murid yi itam ci jamono ba ne nii loolu lañ nekk mooy di wàcc bu ñuy julli wàcc seen loxo mooy li ñuy wax saddu loolu dinaa wax ne beneen jafe-jafe bu nekk suñ bi maanaam man jàpp naa nit ki mën naa nekk murit ba pare di def xab bi parce que mi ngi ci fiq mi ngi ci maalik ba léegi génnagul ma bi loolu wax bi ñu defee day gis ñoo xam dañuy bëgg ñëw nenu léegi lii wérut fekk nag man li ma jàpp mooy moo gën a wér bii nii ah sablu buñ gisee buñ xoolee mboolem mazahib yi amoon dañuy gis ne mazahib yi ko doon def moo ëpp ñi ko deful ci misaal sablu mooy mazhabu abdullah ibn zubair mooy mazhabu saïd ibn musayyab mooy mazhabu saïd ibn jubair mooy mazhabu ata ibn abi rabax mooy mazhabu ibn juray ak al naxaay ak alxasan al basri ak ibn sirin ak al baqir mooy jaafar al baqir al baqir bokk ak jaafar sadiq ci ay matu ahli bayt la bokk siya yi ñoom donte nag dañuy tooñ ñoom sian yi dañuy wax ne xabdu bi li ko fi indi weesuwul dégg nga waaw ñetti xalifa yoo xam ne bu ci ne dañ ko rey ci jàkk ji paak mu faaw Seydina Omar ci jàkk ji dañ ko dóori paak na Seydina Ali xam moom ci jàkk ji lañ lañ ko faaw gis ne ñi leen di dañuy wàcce loxo yi dugal seen poos rek génne kii bi ñu ne léegi dañu yëpp def boo fi nekkee bala ngaa wàcce sa loxo bay bay dugal ñu jàpp loolu nag dama wax ne la waaye ñoom seen mazhab mooy mooy mooy mooy mooy sab mel ne Lays ibnu Saad ima al imam Lays ibnu ku ne xam na ko borom ngir la woon moom it dafa wax sadlu la wax bu dee ba taxawaay bi yàgg nga doog a def xab Layth ibn Sa'd ku ñëpp xamoon imaamul Awzaa'i moom dafa dafa taxyiir tànn loo bu la neexee nga def bu la neexee nga def kon day gis ne li ëpp ci mazahib bi moom lii lañ nekkoon donte nag fi mu ne nii jamono ji ma wax yow mazahibu ahli sunna li ci ëpp xabdu la ñu def nun liñ jàpp ci gàttal gi rek mooy xabdu si yonte bi daana ko def alayhi salaatu wasalaam waaye dafa dem ba mu yàgg ci liñ jàpp mooy li mujj a digle nga xam ne amalu mooy amalu ahlil madina waa madina ci lañ mujjoon di ne mooy satlu biil donte ñaar yooyu yépp nag amuñu benn dayo bi ci ci ci ci ci ci tolluwaay ci tolluwaay du lu am solo noonu masan ci biir julli booluñ ko ci farata yi booluñ ko ci sunna yi dañ ko sopp lañ lay am am am ko ba dee xabdu moom bu dee ci maalikee dañ ko sib lañ lay wax waaye ña koy ña koy def ñay def satlu mooy dañ ko sopp lañ lay wax satlu li ma bëgg a wax mooy foofu kon amul booba booba booba booba daye waaye lii la sëñ bi def mu yi lii la def kon li ma bëgg misaal foofu rek mooy ci biir mashab bi dafa am wuute yoo xam ni sëriñ bi da cee tànn lenn lam ca tànn moo di njàngaleem ci loole wasadlu qad faalahu alaamu wa man qafa l alaama laa yulaamu minhum ataau bnu abi rabaxin ذو العلم والورع والصلاح وابن المسيب الرضي سعيد وهو إمام كاسمه سعيد والحسن البصري ذو العلوم وفضله باد من المعلوم والليس وهو في العلوم غاية نيكو بن نارو غنا واي نون li yóbbu nga xam kon bu fekkee ñu ngi may dégg xaw ma ñu ngi may topp léegi li ma leer na am waaye mbir mu ne la ca sëñ ba tànn doon ko def loolu moo di njàngaleem ci loolee lislaam neexoon naa ne moom doon jàngale leeral na ci biir lislaam wuute ci ne lu ci ne itam am na lu mu ca tànn loolee mu ca tànn moo di njàngaleem ci biir tasawuf it am na lu ca sëñ ba jël waaye am na lu mu leen fa bàyyee xam ngeen xam ngeen ci tasawuf am na ci ay borom xam tasawuf ak jubluwaay yoo xam ni dañoo topp li ñuy wax ak tasawuful maarifi dugg ci mbirum ruux ak aalamul arwaax yi ak ñi dem ba àgg ci ñu am fatxu la ñuy gis yooyu ñu di ci wax ñooñu mën nañ cee cité ku mel ne ibnu arabi ku mel Cheikh Abdul Aziz Dabbaax Ibris nga xam ne téere bu woyof la bu neex a dégg la waaye aalam ba muy wax mënu ko vérifier ndax loolu moom moo moom ma ci àgg moo ko mën a xam Sëriñ Tuubaa nag gisee wàllu boobu feeñul ci mbindam feeñul ci mbindam lim gën a feeñal mooy yoon bi ngay jaar ba àgg loolu la gën a yittewoo mooy ni ngay def ba sa set li ngay def ba sa diggante yàlla ratax li nga def ba am ngërëmul yàlla mooy yoon wi waaye boo àggee nag la nga fay fekk loolu xóotu ci ci mbindam donte nag am na ñu ciy li yoo xam ne ci jataayam la ko daa wax ñu mën ko ñu mën mu xaw a ci ba dugg ci lu mel ne majmuwa bi ak yu demee noonu loolu mën na ci am kon kon loolu ñu bàyyi ko ci xel kon yi ma wax ni ci xaaji diine yi bu ci ne itam ca biir xaaj boobee muy iman mu islaam ihsaan am na lu ca sëñ ba jël waaye léeg dañ gis ne am na lu mu ca bàyyi lu mu leen bàyyi la ca sëñ ba jël nag moo dem leen ci loolee lam ca bàyyi itam ko ci njàngaleem kon loolu mooy gàttalu diine ji nga xam ne moom la sëñ bi doon njàngale léegi nag yi nga xam ne moo aju ci diine lu ma ne xam-xam xam-xam sëñ bi am na ci lu mu ci jàngale am na ci jàngale boppam xam-xam bu ñu seetloo dañuy gis ne sëñ bi digle na benn ñu jàng xam-xam ne wax na ne fa saariu lil ilmi ajmaina daw leen leen ñëpp wuti sàkku waaye nag bokk na ci njàngaleem sëñ bi itam mooy xam-xam boo koy sàkku itam yéen a ji nga koy sàkkoo sëñ bi da cee da cee taxaw lu bare bare bare bare ci fexe ba li tax ngay jàng na doon yàlla kese naafiuhu alladi alfata taallama lillahi jalla waxdahu wa allama moo xam da ngay jàng wala ngay jàngale na yàlla tax wala alladi suyidat dunya bihi li xubbi jaahin wa maqaamin naabihi mooy bul jàng ngir rëbb adduna ngir am adduna ngir am daraje aduna ak ngir nit ni jappé na borom xam wala nga nek di wax ak nit ni ci xam-xam kese loolu bu mu la tax di jang na la yalla kese tax di jang motax wax na ñent yene yo xam ne booy jàng ma nga ci jang mi li wax ne fal taqsudu arbaatan inda ibtida ta'allum likay kay bil huda awwaluha al khuruj min dalal li nga ci yene la ci jëkk na nek bëgg genn ci reer ndax xam mom ak nu mën a mel rek moo gën ñàkk xam ba ca topp na doon boo xamee nga bëgg a jariñ mbindeefu yàlla yi ngir yàlla ba ca topp mooy dundal xam-xam yéene ñeenteel ji mooy jëfee li nga xam moo tax suñu wax ne kon ñeenti yéen yi na nga ko yéene ci booy booy waaj a jàngi mu nekk sa xel nga xam ne loolu rek moo la tax di jàng diplôme bi bu mu la tax a jóg xam-xam bi na la yitteel te na ko wut ngir yàlla loolu benn la ci li ràññ mu mayisaat ak xasaayis yi maanaam njàngaleem sëñ bi ci wàllu xam la ca topp mooy sëñ bi bokk na ci am njàngaleem ci wàllu xam-xam mooy bul bàyyi benn xam-xam sàkkul xam-xam yépp sàkkul xeeti xam-xam yi am yi am njariñ yépp te xam-xam bépp yépp am njariñ loo gis ñu naan la xam-xam la amul njariñ loola dañ ko tudde xam-xam te du xam-xam lu mel ne ak njabar masalan loolu du du xam-xam ak xeet yi xeet yu mel noonu sëñ bi wax na ne hada وخير العلم يا ذوي العقول علم مقرب لمن منه النقول كالعقل والفقه وكالتصوف وكل علم بمنافع يفي بيب خام خام بو ام جاري بوك نا نياغلام سيني بي سي والو خام خام موي nga sakku jiko ngir yalla ba ca top moy bo xamé nga jëf ci walu jàngalé ak jàng xam xam li ci jàngalé sëñ moy bo xamé nga jëf te mooy li mu wax ne wa man xawaa ilman wa laysa yamalu bihi fa innahu ximaaroon yaxmilu maanaam sëñ bi xamul nga xam te wo li nga xam da nga ko war a jéem a jëfe sa kem katal bokk na ci liko koy ràññat itam am jangale ci walu xam xam-xam moy sëñ bi da bëgg bo xamé itam na nga tabe ci sa xam-xam moy lim wax ne wa kawnuhu bi ilmihi saxiya wa an yakuna amilan wafiya فكل من بخل بالعلم فلا بد له من ابتلاء نكلا به معنى كيب كو خامني ياغي ناي سي خام خام فاو يالا نقلا جي ادنا موي ليغا خام فوج لاكو لاجي نغا سي تابي سي جوخه كو سكم كاتن كون بولي سي وارو خام خام لولو مانن ني مانن سي جاب ني موي نجانغلم سيندي موي nga yitte woko te yene jing koy woute sel même bo jangale wat yene ji sel nga def ko ngir yalla te itam li nga xam nga di ko jëfe te bañ a bàyyi benn xam-xam bu am njariñ te tabe ci xam-xam bu amee xam-xam bu dee ci wàllu jëfe li nga xam it foofu am na njàngaleem Sëriñ Tuubaa damay wax rek ay domaine yoo xam ni xëy na dama ci laal xam naa du fi xaj lu wàllu jëfe xam-xam gis ni bi li ko mooy yow jaamu yàlla gi nga jaamu yàlla na ko lal ci kaw na ko teg ci kaw ak ragal yàlla te loolu mën nañ ko déggee ci li mu wax ne laazim ibadatal ilahi bittuqa ilal wafaati wal tarum minhu l mooy da nga taqoog jaamu yàlla te teg ko ci kaw ak ragal yàlla waaye itam foofu it am na luy ràññat le njàngalem sëñ ci wàllu jaamu yàlla mooy sëñ bi daa bëgg nga gën a yittewoo farata yi bala ngaa def leneen mooy al istixaaru bil faraidi maan qabla siwaha waajibun qad waqaa mooy bala ngaa def genn jaamu yàlla wala genn neefe la fexeel ba farata yii nga njëkk koo jëfe te mooy di julli julli juróom yi ak bu koor jotee ngay woor weeru koor loo cee teg doo ko cate farata yooyu sëñ bi limal nañu ko wax nañu ne dikrul ilahi wa salaatun wa siyaam xajjun zakatun kullu di xatman yuraam kon loolu bu ñuy wax njàngaleem sëñ bi ci wàllu jaamu yàlla mooy la ci sëñ bi lay bëgg la jiitu lam jàngale mooy la jiitu ci li ngay def na doon farata yi soo noppee loo cee teg teg ko ci bayit yi mu wax boo demee ci majmuwa bi sëñ bi da koo tekkiwaat wax ne defu ko farata bëgg cee def yeneen bëgg a teg yeneen loolu nax sa bopp la jëfi ko xamut la itam bu loolu weesoo itam mu bokk na ci lii ràññetle njàngalem sëñ bi ci wàllu jaamu yàlla mooy li ngay jëf ci jaamu ak nu mën a tomb na ko xam-xam lal loolu lu am solo la ci liñ seetlu ci li sëñ bi jàngale ci wàllu jaamu yàlla mooy li ngay def ne ko xam-xam lal loolu mas na ko déggee ci li sëñ Tuubaa wax ne fa qillatul ilmi fa qillatul amali bil ilmi tafuq kathirahu bil jahli fal ilmu rafiq mooy li ngay jëf lum tuuti tuuti te tegu ci xam moo gën fuuf jëf ju bare bare bare bare joo jëf joo xam ni ak réer moo ko lal دجا امنا فين فو اس كل عامل بلا علم يرى فسعيه مثل هباء نثرا أنا جو تيغو تي خام خام نينا مو كوند بو نواسار مو يام مو دو تي ام دارا ناخ دي بري سيك كون نجانغلم سيني تي والو جيف يتام جامو يالا موي لي ngay def na tagu ci xam boy julli da nga xam nan lay julle bu yakko nga man ko defal bu kor jotey nga xam ni ni woré ak ni jotté bu ko defee itam ci walu jëf yu baax yi yooyu sëñ bi njàngalem sëñ bi damay bañ a guddal waaye wax na ca lu bari jëf ci gën mooy ji nga xam ne ay njariñam dalaa weesu wa afdalu afdalul amali ma taaddadat lahu fawaidu ka ilmin qad thabat an jahli di jahlin wa qubxin yadfau wa kulli ma li di rachadi yanfau li gën ci li ngay def ginnaaw boo defee farata yi nee na jëf yi nga xam ne njariñ du yem ci yow kese waaye dalay jéggi dem ci keneen masalan jàngale xam-xam nee na ci gën fexe ba nit ki nga dindi ci moom ak def ci moom ak xam nee na loolu dara gënu ko kawe ci yeneen ci jaamu yàlla yi lam ca teg mooy luy defar xol moo ca toog lépp luy defar sa xolit ginnaaw ba dara gënu ko kawe ci li ngay def ci ci ci wàllu jaamu yàlla ak lum néew néew la ci topp mooy li diis ci sa bakkan li nga xam ne neexu la da ko misaal sax ci ñetti misaal ci misaal yow su fekkee da ngaa nay nga xam ne dërëm moom sëñ bi xalaatoo ko génn nee na loo mën a nga toog fii di julli téeméeri junni rakka fexe ba mën a joxe cinq mille francs moo ko gën ci yow déjjati nay ci sa loolu moo gën ci leen loo mën a def ci misaal ki nga xam ne dafa bëgg lekk nga xam ne yittam yëpp mooy xéwlu kooku fexe ba bay koor woor lu baree baree bare di muñ lekk yi moo gën ci moom jeneen jëf ju mën di def noonu la ko toppee ki nga xam ne siiw la bëgg nga xam ne daa bëgg ñëpp xam ko waxtu wu ne ñuy tudd turam kooku lu mu gën a mën a giim gën a mën a nëbb loolu mooy jàmm yàlla jaamu yàlla gi gën lu kon sëñ bi wax nañu jaamu yàlla yi maraati bi jaamu yàlla yi ak sëñ bi dem daana digle ne kenn ku ne na wut ak naafila gu muy def mooy li ñu tudde wird wird sëñ Tuubaa da ko taarife shay'un murattabun min al ibaada ak jaamu yàlla goo xam ne da nga koy saxal bi set nga def loolu sëñ bi daa wax ne na ko ñëpp sàmmante wut ko mooy wax ba li nafsika ala tamaadi daxiratal wirdi min al awraadi walaw qalilan lu mu néew néew na nga wut loo xam ne da nga koy saxal ci lu baax waaye loolu it am na lu mu ca digle ci ci xeeti wirdi yi ngay def ak tudd yàlla yi ngay def wax na ne waxris ala al ixlaasi wal ixfaayi loolu moo ci njàngaleem suñ mooy li ngay def ci lu baax te mu sax moo xam wirdu wooy def la wala xasida gooy jàng wala alxuraan jooy jàng na nga sàmmante ñaar ixlaas ak ixfa mooy na sell yàlla rek na tax te itam loo ko mën ci nëbb ko ba kenn du ko xam nga def bañ a topp nit ñi bu set kenn ku ne nga xamal ko li ngay jàng ci xasida ak li ngay def ci lu baax loolu sëñ bi da ko daa da ko daa aay dugg ci njàngaleem sëñ bi njàngaleem mooy li ngay def ci lu baax loo ko mën ci nëbb ko nga def kenn baña xam ni nga def ndax dara wax ne fa jullu ma bana lahum minhu fala yaksuru nafuhu li nit ñi xam ci li ngay def njariñam du bari loolu mooy gàttalu kon njàngaleem si bi ci wàllu jaamu yàlla ak jëfe li nga xam des na yeneen i poñ yoo xam ni bëggoon naa cee dugg masalan booy soobu di wuti ab sëriñ am na lu ci sëñ ba jàngale booy soobu yoonu yàlla loolu dama koy jakkal de kon point yi dess munuma ci xóotal waye dama koy jakkal moy boo suubu yoon yàlla sëñ wax na la nga wara a jëkk wo moy wut xam-xam tawxiid ndax bo tàmbalee dugg ci tudd yàlla yi ni man nga tàmbali di gënte ke gis mbir yo xamni man nga dem ba ñak teggin yàlla te fek ñak xam xam-xam tawxiid ci njëkk mo la ko mo la ko tek ni wax ne awwalu wajibin ala al murid taxsilu zadihi min at tawhid qabla istighalihi bil infiraadi bi dikri waxdahu wa bil jihaad bala ngay jihaad ak yooyu yëpp sa bakkan na nga wuti xam-xamu tawxid wa baadahu yasluku wa baadahu taxsilu maa yusaxihu bii furood al ayn soo noppee na nga wut xam-xamu fiq mooy na nga xam ni ñuy jullee ni ñu wooree yooyu ba tàmbali ko ba noppi nag wa baadahu yasluku idraama al wusul ala yaday mukammilin yaqfu rasul nga seet mukammil yaqfu rasul ñaar yooyu la ci la ko tënke sëriñ boo xam ni bu mat la tegu ca yoon wa te teg tànkam ci sunna si yonte bi sallallahu nga jox ko sa bopp wax na itam fi muy jaara yow mooy yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada na jaara ci lu tegu ci xam-xam ak it jaamu yàlla di la yar itam ci li sa bakkan bëggoon ak la nga nekkoon bu ba génne la ci dugal la ci ak njub ak leeru topp yàlla ak leeru gëm yàlla dana wax ne loolu mënta ñàkk man talabal wusula lil jalili fal yaxtasim bi sunnati rasuli bi an ma mutian laa yamin kon loolu bu ñuy wax njàngalem sëñ bi loolu it wàllu sóobu yoonu yàlla loolu am na lu ci sëñ bi jàngale wàllu wut alal ak liggéey am na lu ci sëñ bi jàngale duma ci mën a jaar comme lépp waaye sëñ bi digle na liggéey ñaareel bi itam saboote na boo ko mënee tudde baat bi wax na ñàkk solo gi ñàkk solo gi gi ñàkk liggéey ñàkk solo waaye lam digle woon liggéey ba mu digle mooy talabul xalaali du fii talabil xalaali sàkk lu lew la digle boo ko amee itam wax na ne bul xaabaabal ci jëfandikoo loolu moo ci njàngalem sëñ bi sëñ daana wax ne li ngay lekk bu dee lu xaram mënoo jëf lu yàlla nangu mënoo def lu baax mënoo sax ñaan lu yàlla nangu laa yanfau al ilmu wala al ibada bil akli al xaraam inda saad loolu mooy njàngaleem sëñ bi kon ci wàllu liggéey ak wut alal ak économie bu dee ci li ngay dund ak société bi itam sëñ bi jàngale na lépp wax na ni ngay dox ak sa say waajur ñi la mag ñi nga mag jullit ñi tariqa yi nit ñu baax am ambiyaaw yi ak awliyaaw yi ak ñi nga xam duñu ay jullit ñoo ñëpp fu ci ne sëñ bi leeral na nanga war a dox ñoom ak boobu amee xarit sax ci biir société bi xarit boobu nan nga war a dox moom yooyu yëpp sëñ bi jàngale na ca lu am solo wax na itam ne melo yii sëñ bi wax boo fexe ba jëmmal ko ci sa bopp ñëpp dañ lay respecté warmaal la jox la cër loolu it bu bul waru loolu sëñ bi wax na ci lu bëree bari jigéen ñi itam sëñ bi fàttewu leen def na benn dénkaane boo xam ne mooy wasiyet soxna Penda Diop lépp lu li sëñ bi jàngale ci wàllu jigéen ma nga ci ak yenen yi nga xamne mo nek ci yenen téré lu melni lim wax ci tasawur ci saadu tulab wala tazali tasturina al badala badala wala tu ar rijal zamanan lol ci njàngale sëñ bi ci walu jigen moy jigen bu mu nek di jaxasu gor ñi waxtu wu te itam lay sutural yaram du sol col bu yiwe bu de ci amna ci yo xamni sëñ bi bindu ko ci njàngaleem waye da ko jëf ñu gis nga xamni ci jëfi sëñ ba sëñ tuba ji ci lañ sukkandiku ba xam ne lii moo ci njàngaleem masalan sañ ci ab dëkk wala sañ ci kër yooyu am lu mu ciy jàngale la ci sëñ bi jàngale mooy tur wam koy wutal mu gisee dëkk yi mu sanc yépp tur wam koy wutal day day am lëkkaloo ak yàlla daaru salaam daarul mannaan daarul quddus daarul rahman daarul alim alxabir muy dem tuuba day gis ne dëkk bu mu tur wa muy wutal dëkk ba day am lëkkaloo ak ak suñu borom tabaraka wa dëkk ba itam ku ku fa dugg rek day xam ne fii dëkku dëkku dëkku dëkku nitu yàlla ndax jàkka ja mooy nekk ca digg penc ma kër yi dëkk wër ko këram itam noonu noonu am am na nu mu doon dëkk ci ay kër loolu mooy njàngam Sëñ Tuubaa ci wàllu dëkk ak kër bu dee xew yi ñuy def it dinaa wax ne njàngaleem Sëñ mooy lim lim daa def ci gàmmu masalan ta'dimuhu bi sunnati te mooy nam ko daa defee rek mooy ñuy jàng alxuraan di def ay salaatu ala nabi di julli ci yonte bi di jang yenn ci xasaayidam yi ak barsant wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh